parcelle lii ñëw ci open press ki nga xam ne moom mooy Garga Mbossé yéen a ko gisandoo yàgg xoolal lii ay charrette la ñu tegale ñoom ñëpp dañoo yegg ci ay charrette am ñoo xam ne ñu ngi ci suuf di dox duñu wut si ngeen xam ne euh, Moussa Ndoye ko def démb tey muy waa parcelle. du yomb ndax la Moussa Ndoye wax yaraax est-ce que moom la Garga Mbossé di wax tey ndax Garga Mbossé dina ko bàyyeeg Moussa ak lu ko diggee yëpp fan lañ ci jëm loo ci mën ti dégg tey yàgg fii dina mel ni tulleeg malli xoolal xale yi ci kaw oto Leewtoo la ñuy yegg yàgg ñoom ñëpp dañu ànd ak Garga Mbossé ne ci kaw xoolal Garga ngi ne ci kaw yéena ko gis yàgg mu ngi noonu ci kaw sareet lay yegg yaqali no baña yoqamen segu jotalo yaqeno ke ñamay segu yaqali na baña yoqamen segu jotalo yaqeno mangwen an tanati monjo ma wotalo sekunde sarfa babugeri jomnae mangwen an tanati monjo ma wotalo sekunde sarfa babugeri jomnae mangwen an tanati monjo ma wotalo sekunde sarfa babugeri jomnae mangwen an tanati monjo ma wotalo sekunde sarfa babugeri jomnae mangwen am kana dimo njoma wotalo se e. e. na e kana dimo njoma gi ah bi open press doy na waar bi open press jaaxal na ma yàgg waaw mais Abdou ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax. waaw mais na waxal lu xew a xew lii xam nga ku ko xam nga ne lii moom dafa neex lool garga jarbaat la suñu rek la suñu lépp la nekk nit ku baax ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xamante ne mooy maye mu may ñu ndam bu set wicc te dina ko am bu soobee suñu borom. Abdou waxal di promoteur waaye di amateur bu mag waaye ñu nekk suñu kilifa. Alaaji Saliou Bey ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay jaar biram ñi nga. waaw Alaaji Saliou Bey tey moom open press bi dafa soppeeku wala. rek ah, xam moo sax di nga ñëw tey ndeysaan. Leewtoo maa ngi kontaan si Leewtoo bu baax di kontaan si liggéey bi kontaan si yéen waaw Garga Mbossé Moussa Ndoye Garga Mbossé Moussa Ndoye Garga dafa war a gaaw waaw bu Garga gaawee rek mu neex waaw kontaan naa si yéen mais tey moom lu la fi indi. dama ñëw pour supporter Garga. da ngay supporter noo gisee combat bi. ah combat bi Garga da koy daan incha allah. Mhm. da ngeen koy daan. ah xanaa ci bëre. Hmm. mais du ci xeex quoi. ah nu mu ci woo ñu wuy ko si. Hmm. waaw ñu woo yéen daal yéenay daan. incha waa parcelle yéenay daan daal. incha allah. Mhm. ko yàgg. jë jëlal Mali gane gane lan ah. dafay daan ah. dafay jël ndam gi. nan la koy daan da koy daan. Ah, ñu ngi sant yàlla baax te xam nañ ne ñu ngi sant yàlla bu baax te xam nañ ñun wóolu nañ suñu mbër liggéey na lu muy liggéey. baax nga combat bu ne ak lu mu laaj rek waaw. ba bi daal ak lu mu laaj rek. ñu yéeg nañ sere ñëw indi nañ suñu mbër yaakaar nañ suñu mbër te incha allah xam nañ den jëlee ndam bu soobee yàlla. ñun Moussa Ndoye taxuñu jóg ah. waaw. kan moo leen tax nga jóg suñ Moussa Ndoye taxuñu jóg ñun daal Moussa Ndoye taxuñu jóg te incha allah suñ fuñu teg suñu bët den fi yegg du Moussa Ndoye. Moussa Ndoye dara Moussa Ndoye dafa fi dara Moussa Ndoye ku fi daan lagros fii dafa am problème rek tonnerre tonnerre barke de Mbanjaay gis nañ ko fi Moussa Ndoye daana ko fi mbër waaw te gis nañ Lac gis nañ Garga Mbossé lu mu def si làmb ji xoolal xale bi il est toujours gis nga na muy dawee muy ànd ak ak xale yu parcelles yëpp booy fay ngi noonu ànd ak moom Garga ci gis yaag xale baa ngi sourire par rapport ak Papa na addu si laa ilaaha illallaah Papa Sow na Papa Sow ngi noonu ñëw ànd fecc ànd ak Garga Mbossé mbokki Leewtoo Papa Sow wali sina Papa Sow ngi noonu ànd ak Garga Mbossé la ilaha illallah Papa Sow Garga ma sa waay la ilaha illallah xale baa ngi noonu xelal parcelle bi ndeysaan oho di waaj digam ak Moussa Ndoye dimanche la war a doon le 28 Iba Mar Diop Pape Abdou Fall Paf Production moo ko fay ngi noonu boy fay ngi noonu yàgg koo koy boy fay laa ilaaha illallaah boy fay miin di mbëri simple waaye di bëri leen avec frappe moom tam moom boy fay gargaa ngi noonu ndeysaan garga de dam na wax ak na nañu tegal baax waa Leewtoo TV ñu ngi fay waaw garga tey moom yaram yi tàng na de waaw dañoo am mbégte am yéene di ko ñaanal combat mu jëm dimanche incha allah may ko ci ndam bu sedd guy kawe njortam moom waaw mais tey da ngeen ñëwee confiance waaw ñun naka jekk nag suñu ñëw ci làmb confiance la ñu indi moom daal liggéey na li mu war a liggéey di ko ñaanal rek yàlla ca jël la ko caat seexlu yàlla may ko ndam. mais mais mais seen adversaire nee na ku jël avance am da nga koy ragal. ah Moussa Ndoye ñun xam nañ ko na bàyyi wax ji bu la 28 dee bu ñu bëree ba pare xam ne nit ñi xam nañ ko. waaw mais Iba Mar Diop la ne li fi gis ci mbooloo. ñu ah. préparoon arène nationale est-ce que nga kan mooy war a feesale ku nekk xam na ni làmb ñi xajul Iba di wax supporter nan teel a préparé wu parcelle nag ñëpp amul kii amul kaa parcelle 1 ba 26 ñu ngi woo ñëpp cité Fadia golf sud na son jeune yi nee naa ne le 28 ñëw du stade ba mu fees ñu tuus tuus bu neex bëre daan ñibbi incha allah. koo koy Garga 2 mbokki Leewtoo. turandoo moo war a bëri dimanche. non incha allah ndam rek. ah ndam rek bu soobee yàlla. la ilaha xoolal ma Garga 2 ndeysaan jëlal Garga 2 gi noonu waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla jul sinant bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur du nuyu waa parcelle yëpp 1 ba 26 di jégaluwaat ci dérangement bi parce que ku ne xam na ne li coono la di sant ñu fi teew ñëpp gis nañ ne affaire bi jaxasoo mais seen xër ak seen bëgg guñ ma bëgg ak namm gu ñu namm làmb ak am lu ñu namm parcelle moo waral lii waaw ñu ngi leen ci masaw bu baax a baax a baax génn sa kër fan bi ñëw taxaw sa buntu kër xaar waaw sama yaram dafa daw tey parce que gis nga ko dama génn yaakaar na may dugg oto ñu ne ma ay sareet lañ ma yëgloo booy génn na ma nii lay demee te ñoom luñ bëgg ñu loolu la ñuy def waaw suba ba léegi lekkuñu naanuñu tëdduñu gis nga vraiment xol sedd na ko waa làmb noonu la rek day neex suba mu naqari bu la 28 yàlla na neex. teewaayu Papa Sow mu mel ni gën ngeen gisee ci lu wér gu loo xamante ne xam nañ ñu yor suñu micro ak suñu caméra teewaayam lan la la def ak. teewaayu Papa Sow bett fii mais Papa Sow amul lu mu mës a xewle te ñëwul. ay open press wala yooyu. mais lu Moussa xew sama kër kenn du ko fa jiitu te day yëkkati téléphone am di ma woo mook Moussa Dioum mu ngi xamante ne mooy sama mag man Moussa Dioum mooy sama mag taxaw na ma fépp Moussa Dioum taxaw na ma fépp sama mag la sant naa ko gërëm naa ko mboolem mbëru parcelle bàyyiwuma kenn 1 ba 26 ku ñëw ku ñëwul parce que yite dafa bari. yàlla may ndox mais garga garga garga man dama lay gis booy bëree te confiance balaa caa nga toog. man li ma bëre si làmb ak adversaire yi ma dajal su ma demee ba bëre Moussa Boye dama teg suusi war nañ ma laaj lu xew adversaire la mbër la dama muy def mais athlète laa am déet su ma amoon lu ma gënal du ma bëre ak moom waaw sama dernière question mooy parcelle dafa daaw seen ak kan léegi yow ban intention ren trophée meilleur écurie mi ngi doon waaw yàlla may ndam la 28 ñu fàttali lépp incha allah mbooleem mbër bu nekk parcelle sant naa la gërëm naa la vraiment dafa am samay rakk yoo xam ne dañ may taxaw di ma jàppale samay rakk lañ ndax bu dee benn at sax magee naa leen ko muy Boy Faye Thié Garga baal ma ñoo ñu kese ak Cheikh Tidiane Niang ma lim ñooñu kese rek ñu si des doo dugg ñu dugg si biir samay coach daam laat père Gora père Tafa Cissé ñooñu du ma leen sant parce que ñooñu dem nañ ba xam ne mooy loolu mais damay jégalu waat quoi bu baax a baax a baax a baax a baax parce que coow li dafa bëri combat bi dañ ko jël am nañ ko jëlee délocaliser su entraînement parce que fi mu ñu toll la am lu mu laaj ñu xam ko loolu quatre mois presque di nekk ci li ñu nekk lu ne dégg nañ ko comprendre nga supporters yi toujours li ñuy bëgg mooy li leen neex bu ñu sañoon dañuy gis seen mbër loolu jaadu na ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax di leen xamal ne nañ dala seen xel ñun li ñu nekkoon buñ ñu xoolee nañ xam ne am na ci lu nekkoon n'est-ce pas liggéey nañ li ñu war a liggéey ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam la 28 incha allah